maama ñu ngi ko stand by ñu ngi ko toppatoo waaw ñu ngi ko toppatoo waaye ñu ngi doon wàllu interesting si programme bi waaw mooy incha allah mhm. dinañ am ay pétard yëpp parce que night night celebration la ok nekku just night day album launching mhm. dama launch ma album bi waaye tamit dama celebrate man live live dama celebrate xam nga yàlla mhm. dem naa ba fekkee ko métti lool toll woon na jamono boo xamante dama réew wala kii xam nga ku xamadi la loolu moo nekkoon loolu lu defoon si boppi nit ñi waaye bu nit ñi demee ba gis ne kii nekkate kii xam nga rek waa kii sound boy la cape yëpp ma laaj ginnaaw mi loolu yëpp dafa dama ko war a parce que dama a toll fii am suma gars yi ay board yëpp dañ ko defar ay board yi Killer Ace fële Bondey. Hmm? Prince Ali you know saying CD bi xam nga rek. waaye fa mu ne dañu am beneen kola si line bi rek ñu jël kola boobu balaa ñu dem ak suñu break bi. hello. yaa hello. hello jaajëf. yow ACE. hey Baye Mbaye la aka BMM la. booy yaa baax booy ngeen ne naka la. booy góor sa gannaaw booy naka program beeg fans yeeg yëpp. booy di bëggee rek booy di bëggee di bëggee bu baax a baax booy ba kontaan ngeen bàyyi. waaw gis nga xanaa di waajal décembre 14 bi nii rek. waaw ñëpp loolu la gars di waajal dina. am na mbir yow maa ngi seen gannaaw saa su nekk rek booy xoolal décembre 14 rek. waaw ma la dégg waaw. alors waaw so naga naga naga naga bagage yëpp maa mat na rek. lépp mat December 14 besi bi mu jot rek yëpp jot rek ñu def fa lu garaaw def fa lu seer allah loolu leen plan daal. waaw waaw sigil hip hop man affaire yi dem ca kanam si ah. kaw kanam rek. Hmm. te hip hop mooy tegoo mooy law incha allah amin bro amin amin amin. ndax yow ndax yow ndax yow real nigga nga man. jërëjëf ma jërëjëf jërëjëf saa su nekk all the time man jërëjëf bro. bu ñu ten yu mel yow biir Gambia hip hop dina dem kanam man. ah <laughs> yaa ni yow yow keneen nga nu yow ah. <laughs> all right man jaajëf man kontaan naa si loolu trop man mm-hmm. gars yi borom baax leen man ñu kontaan bu baax si studio bi ñoom Sirifo Dabo ñoom Sirifo ah. Dabo suma gars yi jiyaatee si fii nii ñoom seen ñoom gars yi no gars yi gars yi job bu nice la gars yi de def gars yi ay hard workers leen man so maa ngi leen a bëggee you know seen loo loo lan nga xam si ki nga xam ne mu tukki njëriñ di dimbale waa waa kiram si kaw si kanam rek tekki rek tekki rek su dee tamit dugg aljana hmm? wala la nek sa final word sa fan si parce que waxtu bi jeex na ak na nga gisee Starline non Starline mom ah na la daa ko tëjee freestyle sa Starline mom xala bu way sa yow mom yaa ngi si kër gi xam wa di wax fan si ne alhamdulilah jërë ngeen jëf content na trop am ci sen support sen call ci ñuy seetaan yëpp ñu sen everybody ku xamaton kii la ay sey na tay xam nga ma tay man la nuyu bu baax a baax di leen invite ci suma bofa di leen invite ci suma show bi mhm. December 14 moy suma album bi ci si lo Sénégal bi mhm. ah, di leen wax content na trop bu baax a ma ngi jégalu nag xam def naa fi loo xamante tamit xam nga xëy na nekkutoon loo lu mat la maa ngi jégalu si loolu tamit bu baax baax su wax ngi bu baax tamit di wax 14 mooy bés ba te la na li di kontaan si loolu bu baax Euh, di bëgg ci yow bu baax dañu tam kontaan nañ trop pour am la fi nii. xaaral ma jox la dara. jox amul maa ngi fii style line ak sama waa ji bii boy moom moo njëkk a introduce fii ACE boy represent one click that's the DLC boy ñu ngi egg si kaw mel ni mango si kaw tree boy. for <laughs> the first time ever on GRTS TV boy moo taxit nag bés di ngeen ma toog di ma seetaan fii si CNN wala ay yeneen TV boy. yo B boy, E boy, I see you boy. Big One love, bro. Shout out um, mangi mangi biggie tamit mo um Lamp of Fashion Shop. Mm-hmm. You know what I'm saying? Dafa japp ci man bu baaxa baax muy sama way boy bi BLD Dega Daj, you know what I mean? I got you inshallah and the whole straight from Jupiter team, mm-hmm. Mm-hmm. Aces fan base yi. Hip hop ci kaw ci kanam. Jërë ngeen Bye bye. Boy, ma ban bigga. Mala. Oh man. But my mom I got to dedicate this one for my Sorry for the tribulations and for the drama. Yeah. Even though things are hard, you still work harder. Working both night and day for a better tomorrow. It's really sad that you had to break up with my father. But life keeps spinning like a barrel in a revolver. I really feel your pain to kill your son, my tar. Uh. But God willing, I'm really gonna heal your scar up. Your son gonna make it and leave him all starstruck. Yeah. I know that won't really bring back my tar, but no. he's still living. I swear to God, that's God's stuff. True. Serve the whole world from here to Mars. Uh, I really hate to reminisce about the cold days. No. You work all day no. just to get low pay. No, no way, Jose, no. that's the old days. You sit in the bold way, that's uh-huh. why my soul says. That's my word, ma. Ain't no need to cry. Yo, I'm gonna rise, wipe them tears from your eyes. Uh. That's my word, ma. Uh. Ain't no need to cry. I'm gonna rise, wipe them tears from your eyes. Uh, That's my word, ma. Word. I'ma make you smile, even though I've been so wild ever since I was a child. Yeah. That's my word, ma. I'ma make you smile, even though I've been so wild ever since I was a child. Mom. from Africa went to America to get her grind on, hustle to make life better for her people that she left behind and the ones ahead of her. Her six children were back, ooh, like Erica. I really feel your pain, so I'ma spit it out through the speakers. Cause every two weeks your kids want new sneakers. We talked all day, but we was always hard-headed. But now I realize what my said is what God said. Mama's love and care, I swear to God that is nice. But now it's really my turn to make that sacrifice. I guarantee you I'ma bring home that sacrifice. And now the tables turn cause does your son have a wife? Yeah. I'ma be back tonight as uh, soon as I uh-huh. grab the mic. Yes. Speak for all the mamas in the world, whether you black or white. Yes. Cause of all the mamas that everybody have a life. So take care of your mama, make sure you grab her right. Yes. That's my word, ma. Ain't no need to cry. Yo, I'm gonna rise, wipe them tears from your eyes. Uh. That's my word, ma. Ain't no need to cry. I'm gonna rise, wipe them tears from your eyes. That's my word, ma. I'ma make you smile, even though I've been so wild ever since I was a child. That's my word, mom. I'ma make you smile, even though I've been so wild ever since I was a child. Give thanks and praises, mother of the earth, mother of creations. Ya Aisha Job, Mama Gaibo, Ya Aisha Job, Mama Fair, Tiga, Gola, Mama Riola Yaboy, Yaboy Mama Gaibo, Mama Alhamdulillah fight hands for my mama. If you really love your mama, then say Work hard both night and day for your mama. Oh, oh, oh, oh, oh. Jelly Jim da thank you, mama. <laughs> Oh, i love it. I'm loving it. Thank you. welcome to a new TV show, Girl Talk. Girl Talk is designed to create a platform for girls and young ladies to share information about life and expectation with an aim to create awareness and a positive